Euh, Mouhamed Mbaye le directeur des services techniques de la mairie de ville maa ngi ànd ak sama collègue euh, madame la directrice de l'aménagement et de l'urbanisme Adjaratou Sène Ndiaye moom mi nga xam man ax moom la maire désigné pour ñuy superviser travaux Promoville yi depuis 2017 tey nag ñu ngi r donc ñu ngi nigi waa R100 bu baax population yi taxaw nii suñu wet ñoom roo ak euh, sunu gars yi Bamba Promoville nag mooy liggéey liggéey bi état du Sénégal président de la République moo fi indi Promoville il faut dire la waaye ba maire Talla la maire de la ville yëgee ne Promoville am na dafa daal di sol dàllam dem seeti autorité yi ñu jox ci 16 kilomètres de de route ci 16 kilomètres yi réalisé nañu 9 kilomètres 300 tey ñu ngi nii R100 ak Sampaate nga xam ne boo ko boolee day mat 1 kilomètre 500 fële boo fa demee Mbour 3 day nekk 1 kilomètre ak yeneen tali yoo xam ni war nañ ko def fayu war nañ ko def parcelle ci boulevard bi war nañ ko def euh, ci euh, ngent extension ak côté jaxaaw euh, bi. loolu boo ko boolee dana sax romb 16 kilomètres yi ñu waxoon yooyu yëpp ci yittey maire la waaye ci dogalu président de la république donc ñuy remercier le président de la république di di di jaajëfal maire de la ville mais di remercier population Hersent yi ci seen euh, responsabilité bi ñu jël ci seen citoyenneté modèle bi ñu wane. parce que 2017 la commencé fii Hersent lañu ñu tàmbalee woon waaye yàlla def cat dugg ci entreprise ba ñuy choisiroon moom moo warul liggéeyul li mu waroon liggéey. d'ailleurs ñoom sax ñoo am leen état loolu c'est un problème te bu résilier marché dafay jël temps sa a presque deux ans ñu daanoo ko jóg ak ñoom yàlla dogal na nag loolu sotti na ba tànn nañ beneen entreprise bu tudd CDE mu ànd ak Enan Chine di liggéey Enan Chine nag mooy réaliser travaux yi Enan mooy chinois yi gis nañ leen Thiès ñu liggéey fi liggéey bu mucc ayib 9 kilomètres 300 yi nga xam ne liggéey nañ ko ci tali Promoville ci phase badd bi ñoom ñoo ko liggéey liggéey bu mucc ayib gis ngeen tali yi Cité Lamy gis ngeen ko Grand Sane gis ngeen ko fu ne ci Thiès Jaxaaw Kër Issa rendu leen euh, bari na fi ñu fi def ay tali alors liggéey bu mucc ayib lañ ko liggéey te ci délai bu gàtt lu yem nag r dañ koy jéggil tali bii ñu jàkkaar lool euh, jëm Sampaate daañ koy yóbbu ba mu àgg ci terrain ki euh, école bi ñuy wax école xaaxam jëm ci station de pompage bu fa waa ONAS def donc station de pompage boobu waa ONAS am na benn station buñ fay def beneen bu bees boo xam ne dina am ñaari moto pompe yoo xam ne 500 mètres cube heure la xam nga liy jóge fii ci ndox jaar sampaate buy àgg fale day bari ndax man dëkkoon naa r xam naa li fi ñëw ci kante ndox ndax métti woon na fii coow yi bari woon na li tali bi dam daan yàq dafa bari ñun xamoon nañ ko waaye ñoom muñ nañ ko benn moment les populations mer nañu waaye ñoom. ils ont fait preuve de responsabilité dajale nit ñi waxtaan ak nit ñi muy délégué de quartier mu ñoom Ro muy ñoom Bamba ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi dëkkee ci quartier bi vraiment ñu nekk ñu naw ay góor ay jigéen ñu responsable donc ñu leen di félicité ci seen taxawaay boobu nga xam ne citoyen modèle rek moo koy def donc ñu ngi leen di félicité bu baax ci turu monsieur le maire. di nuyu suñu délégué de quartier Mamadou Mar Ndiaye ak bépp élu ko bu fi nekk ak képp koo xam ne am nga fi normal tànk fii si quartier bi di beral nag nuyoo. Mamadou Lamine Diouf grand ro ki nekk sama ginnaaw nga xam ni tey je pense bien monsieur le maire wax na ko léegi Ameth Mbaye nee na tey waa Hersent dafa am lu ñu wane wane nañu activité de citoyenneté wane nañ ñi ay modèle lañ wane nañ mbir yu bëri yoo xam ni ñi foogoon ne war nañoo recourir à la violence defuñu ko loolu yëpp nag su amee on a été très bien moom ki ñuy wax Mamadou Lamine Diouf am na si part. Mm-hmm. mais tamit di remercier sunu benn papa boo xam ni doxoon na ay jéego yoo xam ne ba indil ñu fi boromofil. Mm-hmm. muy le professeur Djibi Diakhaté. Mm-hmm, di wax ni contentement am nañ ko am nañ mën naa wax ni surtout soulagement am nañ ko tey. di leen xamal ni man par ma voix si collectif bu luñ koy waxee rek. collectif ànd defar R100. taxawuloon projet àggale sunu tali. man mi nga xam te maa leen fi taxawul am am nañ mbégte loolu mbégte mi nag xamuñu fu mu yem. Hmm. parce que tey wax nañ ko problème yi fi nekk dafa bëri. Hmm. parce que fii su tawee rek te doon taw ma ñëw photo jël vidéo envoyé ko moom mii. Hmm. pour mu xam ne rek lan lañu nekkoon di dund. si problème hygiène. si problème environnemental et l'autre yu bëri yoo xam ni tey. ñu ngi ko doon tànkoonteel tey nag si période bii nii jàpp nañ ni c'est le moment opportun. bientôt l'hivernage. tey suñu àggalee tali bii nii. gëm naa ne amuñu seen fay si loolu noonu. donc nag di jàpp ni. la ngeen ñu waxoon def ngeen ko. Mhm. parce que waxoon ngeen ñu nañ leen may durée bu gàtt. Mhm. incha allah di ngeen ñu ñëw di ngeen ñu revenir. Mhm. te gis nañ ni ni ngeen ñu revenir ñëw ngeen ñu revenir avec des preuves. mais revenir leen ñu ak théorie seulement. donc loolu noonu kontaan nañ si bu baax a baax di wax ni borom bi subhanahu wa comme bi am kattan ak rek yàlla na ko àggale. te ngeen xam ne bis su ko àggalee nekk loo xam ne defal ngeen ko askanu xoolee dem na ba Silema parce que tey su demee ba Agvale pour ngay dem Silema doo amati problème pour hmm. ngay dem Bagdad doo amati problème pour hmm. ngay dem Daaru doo doo amati problème hmm. problème de circulation boo xam ñu ngi koy sa temps yi peut lu bëri dina si wàññeeku di wax population r bi yéen yéen a am cant ak ngërëm parce que wan ngeen ñun tamit ba ñu waxtaan ak yéen déglu ngeen ñoo xel te dégloo wool ñu xol amul na fu nit jaarul fas wane ngeen preuve de responsabilité. wane ngeen preuve de maturité. dal ngeen tey ngeen te gëm naan loolu noonu moo indi lii nii yëpp te du ñu terminer lu tul remercier le maire de la ville Talla Sylla parce que dama koy faral di wax c'est un maire accessible. parce que ñun ba ñu tollee fii nii war a rencontrer waa Promoville Amadou Lamine Diouf daf ñu suggéré nañu faaw ngeen dem waxtaan ak maire yëpp. def nañ ko ak maire Thiès Est def nañ ko ak euh, maire ville def nañ ko ak maire ouest mais soo xoolee ñi fa ñëwoon représenté fii nii c'était la mairie de Diasville mhm. donc loolu noonu kontaan mais amoon na tamit ñeneen ñoo xam ay élus locaux lañ comme ay maître Ousmane Diagne ay grand Ablaye Fall ak ñeneen ñoo ni ñëwoon nañ wax dëgg fa yàlla mhm. fekk suñu su rencontre boobu mhm. kon nag di ko wax monsieur le maire encore une fois dalal nga xel yi te ñu ngi lay santaat di la gërëm di la wax ni lii su àggee daal dina wane benn preuve de reconnaissance si ñun waa population de Promoville nag mooy liggéey liggéey bi état du Sénégal président de la République moo fi indi Promoville il faut dire la vérité waaye ba maire si la maire de la ville yëgee ne Promoville am na dafa daal di sol dàllam dem seeti autorités yi ñu jox ci 16 kilomètres de de route ci 16 kilomètres yi réalisé nañu 9 kilomètres 300 tey ñu ngi nii R100 ak Sampaate nga xam ne boo ko boolee day mat un 1 cinq 500. fële boo fa demee Mbour 3 day nekk 1 kilomètre 300 ak yeneen tali yoo xam ni war nañ ko def fayu war nañ ko def parcelle ci boulevard bi war nañ ko def euh, ci euh, ex ngent extension ak côté euh, jaxaaw bi loolu boo ko boolee dana sax romb 16 kilomètres yi ñu waxoon yooyu yëpp ci yitte maire la waaye ci dogalu président de la république donc ñuy remercier le président de la république di di di jaajëfal le maire de la ville mais di remercier population Hersent ci seen responsabilité bi ñu jël ci seen citoyenneté modèle bi ñu wone parce que 2017 la ñu commencé fii R100 la ñu tàmbale woon waaye yàlla def cat dugg ci entreprise ba ñuy choisiroon moom moo warul liggéeyul li mu waroon liggéey d'ailleurs ñoom sax ñoo amee état loolu c'est un problème te bu résilier marché dafay jël temps ça a presque deux ans ñu daanoo ko jóg ak ñoom yàlla dogal na nag loolu sotti na ba tànn nañ beneen entreprise bu tudd CDE mu ànd ak Enan Chine di liggéey Enan nag mooy réaliser travaux yi Enan mooy chinois yi gis nañ leen Thiès ñu liggéey fi liggéey bu mucc ayib 9 kilomètres 300 yi nga xam ne liggéey nañ ko ci tali Promoville ci phase badd bi ñoom ñoo ko liggéey liggéey bu mucc ayib gis ngeen tali yi Cité Lamy gis ngeen ko Grand Sane gis ngeen ko fu ne ci Thiès Jaxaaw Kër Issa rendu leen euh, bari na fi ñu fi def ay tali alors liggéey bu mucc ayib lañ ko liggéey te ci délai bu gàtt lu yem nag R100 dañ koy jéggil tali bii ñu jàkkaar lool euh, jëm Sampaate daañ koy yóbbu ba mu àgg ci terrain kii euh, école bi ñuy wax école xaaxam jëm ci station de pompage bu fa waa ONAS def donc station de pompage boobu waa ONAS am na benn station bu ñu fay def beneen bu bees boo xam ne dina am ñaari moto pompe yoo xam ne 500 mètres cube heure la xam nga liy jóge fii ci ndox jaar sampaate buy àgg fale day bari ndax man dëkkoon naa R100 xam naa li fi ñëw ci kante ndox ndax métti woon na fii coow yi bari woon na li tali bi dam naan yàq dafa bari ñun xamoon nañ ko waaye ñoom muñ nañ ko. benn moment les populations mer nañu waaye ñoom ils ont fait preuve de responsabilité dajale nit ñi waxtaan ak nit ñi muy délégué de quartier mu ñoom Ro muy ñoom Bamba ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi dëkkee ci quartier bi vraiment ñu nekk ñu naw ay góor ay jigéen ñu responsable donc ñu leen di félicité ci seen taxawaay boobu nga xam ne citoyen modèle rek moo koy def donc ñu ngi leen di félicité bu baax ci turu monsieur maire.